Fatima Ba ñu nuyooti la fi daan nuyoo te bàyyi nga jukkil ñu xibaaru suba gi. xibaar yi bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ne pèlerins yi ñu ngi koy dund ñoom ñu nekk ci hangar bu aéroport Léopold Sédar Senghor nekk ci condition yu metti ndax foofee amuñu sax fu ñu toog salte bi wër leen waaye amul ay toilettes foo xamante ne mën nañ fa dem am ñu leen metti ndax seeni vol yu ñu ajandi ko ak seeni passeport yi nga xamante ne ba léegi nii euh, jotuñu ko ñu ànd ci reportage Mbacké Amar Diafara Ba ak Alioune Diagne. hangaru pèlerin bu aéroport Léopold Sédar Senghor ujaaj yi di jànkonteel ak ay jafe-jafe lu jëm ci wàllu set ginnaaw ba seen vol amee ak tardé. ak salte beeg yëpp ak maladie bi am mais eh, ah, yàlla mooy dafa sutura rek ah. te nit ñi nag lu ngay xar barke dama nañu tawtee ah. xam nga teguñu ko fenn am xoolal ñi suuf ñu toog waroon nañu créer moo ñu mën a toog bu ñu fay seen xaalis mat dañ leen war mettre à l'aise setul moom ak taw beeg nawet bi nii waaw. ne fii moom gis nga ko de. débordé. beneen jafe-jafe bu ujaay yooyu di am bërëb bu jàppandi bu ñu mën a nekk. defuñu benn avis nga mën a xam bu ñu paree dugale ci biir hangar bi fële. am na mag ñoo xam ne ñu ngi fi eh, am fu ñu toog siège amu fi ndox bu set sa duñu ko nañ jël ay matuwaay nag ndax fii moom neexul toog ndax man boobu tey fii laa toog sa xeer bi. am xibaar yu doy tamit nekk beneen tolof tolof bu ñuy jànkonteel. Eh, ñu la dimanche nga waroon dem dem loo dimanche boo ñëwee war a ki la wara ki nga war laaj mu wax la doo ko gis information bi doyul waaw fa la ñu lay weer fa ngay toog ba ngoon ndax benn ndax soo ñu mën jox. ñu bari ci ñoom nekk ci angaar bi ajuma ba tey ujaaj yooyu di yaakaar seen jàngoro saafarawu ba ñu mën a dem màkk si jàmm. Mbakema ñu koy jaajëfal ñeneen ñi dund ci ay jafe-jafe di chaîne télévision yi nga xamante ne ñoom dëgg-dëggu courant yi ñoo leen ko yóbbee ndax li courant bi di coupé bëri lool ñuy faral nag di dënd ay groupe électrogène ngir rek mën a doxal wéyal seen i programme waaye seetlu gi moo di ne loolee ay koppar yu bëri la leen di dikkee bokk na ci télé yooyu seen TV ak TFM gi àddu nañ ci ci reportage Nafisatou Silla Mardien ay matériel yu yàqu antenne bi di dagg saa su nekk mu bokk ci yenn jafe-jafe yi coupure électricité yi di jural yenn ci stasion télé yi. le délestage. coupure yi def ñuy jural tele bi di fay te ñun fii ni ñuy liggéeyee moo di téeméer goo jël juróom-ñeent fukk yi ay direct la te saa su nekk dañuy daw ngir fexe ba suñu équipement yi bu ñu yàqu guddi sax da ngay tëdd ñu daal di lay yee. coupure yi bu fekkee du yàgg sax dafa nekk loo xam ni li muy am dafa bari. les équipements électriques. ngir fagandiku nag ci jafe-jafe yu nu mel ay pexe am na Sen TV ak TFM di jëfandikoo ki groupe électrogène loolu nag du lu yomb ndax li muy laaj ci carburant. compte ñu def. am nañu groupe électrogène boo xam ni dafa méngoog jamono waaye nag coupure yi ni muy amee di dem di ñëw bu ñu sàgganee moom sax muy mujj yàqu. problème avec le groupe. groupe Euh, machine yëpp kër euh, bi dafay coûteux nga nag ñu koy woo ci mu yembal mbir yi ngir liggéey bi gëna a mën a jaar yoon. je pense que. Senelec moo war a ay jumtuwaayam ngir nag jox ñu courant boo xam ni dafay tax ñu liggéey ci anam gi mu gën a yembee. technique surtout.

ñu waxtaanee leneen di SMS yi nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy jot muy bàyyeekoo ci opérateur téléphonique yi SMS yi euh, léeg-léeg ñu wax la loo xamante ne du dëgg waaye itam Sénégal yi teg nañ ci itam ne loolu da leen di tànkal sax ndax euh, seconde bu nekk nga jot SMS loolu daal am na leneen lu ko gën ñuy sàkku ci ARTP mu jóg ci mbir moomu waaye itam association bi nga xamante ne moom moo boot euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy consommateurs yi ñu ànd ci reportage Pape Faran Ñing Thierno Laurent Mendy sonnerie yu bëri yi nga xam ne nag opérateur téléphonie mobile yi ñu ngi koy envoyé ñenn ci consommateur yi loolu nag tax na ñu mer ba futtu SMS yi man neexuma tey neexuma ëllëg franchement sax man bu ma kenn envoyé da nga nelaw sax ñu dala dérangé tit tit ji moom mooy sonal kii kii kii kii bu amatul app franchement sax ñu bàyyi ko waaw loolu moom baaxul moom dafa raf ci moom chaque jour damay tëddi nelaw ñu ma koy envoyé waaw man bu ma soññ moom kenn bu ma kenn envoyé SMS yu bëri yi dañ lay fekk nga toog nekk sa intimité mu dugg sa biir intimité man noonu laa ko gisee parce que SMS yooyu dafa bëri. Ah, xeetu communication bi nga xam ne moom la ñu jël naqari lool lii di clients yi rawatina li nga xam ne moom la bind ci biir SMS yi. des fois yenn jeux yi ñuy def yooyu noonu dañuy naxaatale di nax askan bi envoyé ay deux cent SMS quatre cent deux cent cinquante pour nga gagné lii wala gagné lii ñi yeewu ak ñi nga xam ne xamuñu ñoom ah envoyé fekk ñoom ñi ngi yóbbu seen xaalis di leen nax tamit loolu tamit baaxul. que envoyé li mu di dikkee moo gën a moins cher ñu def campagne de publicité. suñu sukkandikoo ci ñoom nag jàpp nañ ne am na lu ciy ñuul liñ ciy naqarlu nag moom moo nekk ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon a taxawal askan wi ci wàllu woowu patt pataaral giñ ci am. je pense que tey autorités yi réguler marché yi war nañ ci xool loolu exactement euh, opérateurs yi lan la ñuy def ak euh, seen base de données. association yi consommatrices du Sénégal ñoom ñoo ci war a jug taxaw défendre loolu noonu xeex ni opérateurs yu bëri dañuy naxaate envoyé SMS di nga gañ lii di nga def lii lii lii affaire yooyu noonu te ñi nga xam ne nag ñoom la ñu dajal nee nañ SMS yu bëri yooyu ñi nga xam ne moom lañ di yónnee ab tooñ la te ñoom nag li ñuy sàkk moo nekk ñu dakkal ko ci waajtaayu tabaski bii la ñuy àddu ñenn ci tailleur yu ndaw ndawaan yi ñoom daanaka ba léegi gisaguñu benn client jàpp nañu ne fii daal ci Sénégal képp koo xamante ne da am looy ñambaas wala lu ñuy defaraat da ñëw ci ñoom waaye bu événement yu mag yi ñëwee lu ci mel ne tabaski ak korité dañ leen di jéggi dem ci tailleur yu mag yi li ñu mel nag ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax xam ne ni bu dee seen atelier yi tuuti na itam xam-xam baa ngi fii ñu ànd ci reportage Aminata Mbaare Sow Alioune Diagne ñu ngi fii ci Darou Rahman 2 euh, ci xolu Grand Yoff ci bërëb bile la El Hadj Diallo amal atelier de couture am ay semaine rek a des ñu jublu ci tabaski bi waaye ci atelier bile buuxante amagu fi. melokaanu atelier bi mun na la nax quoi mun nga jaaxaan ne ñii li ñuy liggéey ay kii la ñuy liggéey fekk nag ñun ñun or du loolu sax ñun liggéey fii duñ ko manqué. ak fii réparation moom daanaka surtout ñun dëkkal si koñ bi nii moom bëri fi ñoo xamante ne réparé moom lañ lay gën a sonalee mais bu ñu amee yenn yi. dañ koy yóbbu si yenn atelier yu mag yi fay si mënu te amaana sax bu ñu ko fayee ba pare dañuy ñëwaat fii nga réparé leen ko parce que coupe leen neex. bu ñu doxee tuuti jub ci beneen atelier de couture même problème la Basiru lii di jànkoonteel xale bu góor bi la donte tailleur la teewul ay yére yi ñuy defaraat lay faral di ñaw. saa ñu yan ñaw ñoom it la ñuy ñaw nii rek ay client yi dañu soxla ñëw tey wala ginnaaw suba saa la lay ñëwee saa ne moom vraiment yéen am na ay mooy loolu quoi amuñu saa yoo xam moom. soo ñëwee dañuy ñëw ay ñëw xew wala événement ñëw mariage wala bien dañuy ndaw ndawaan daal. mu mel ni nag ñii di faral di jëfe noonu mbaadu dañuy tuutal ñi ñaw ci atelier tailleur yooyu le. la ñuy xaw a déranger nag parce que tey mënuñu dëkk yow boo amee sa sa yenn mbasin yi di ko yóbbu si yenn atelier yu mag yi léegi boo amee comme ay genre yenn ay réparé rek wala ay defaraat affaire yooyu noonu nga indi ñu ko. ñaw bu rafet nekkul ci atelier bu rëy nekkul ci atelier bu ndaw quoi di nga gis nit koo xam ni da yor atelier bu ndaw. mais macha allah bu la ñawalee rek nga kontaan nga gis koo xam ni itam day yor atelier bu am jëmm mais bu la ñawalee moo doo am lu la neex quoi. lu ci mën a doon ñi liggéey ci atelier yooyu ñu ngi xamal ne ñaw bu rafet dépendre rek ci bërëb bi waaye nga mi ci procès bu Karim Wade la ñuy àddu ak prévenu bi di Alioune Samba Diassé moom nag démb dafa daal di rek waneeti boppam ci kanamu juge bi di Henri Grégoire Diop binaaw eh, biñ ko daal laajee ay laaj yu bëri moom Alioune Samba Diassé dafa daal di rek xam ne ne fu mu toll dara ci procès bi li ñu di ñu yemale ko fii eh, tiré ci seen i conclusion ndax dafa sonn ci laaj yi laaj nag mu ngi aju woon ci société bi di ABS SAC ABS corporate moom eh, Alioune Samba Diassé daal na xam ne xamul dara ci li ñu koy laaj euh, avocat yu Karim Wade nag ñoom sàkk woon nañu ci cour suprême mu daal di jëlee euh, ca euh, cour spéciale bi kii di Henri Grégoire Diop waa di waaye cour suprême daal di la leen xamal ne amuñu daal ay preuve yu doy ngir ñu jëlee fa ki nga xamante ne moom moo di Henri Grégoire Diop président Macky Sall mi ngi wéyal ay jéegoom ngir rek waajal woote présidentielle yu 2017 moom Macky Sall ginnaaw bi mu dajee coalition Benno Bokk Yaakaar itam waxtaan ak ñoom waxtaan ak seen i alliés ñu mu jotoon amal daal ay jafe-jafe di jéem a moom lépp rek ci waat waajal euh, woote présidentielle yu 2017 ñooñu ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu politique jàpp ne loolee euh, lu jaar yoon la ci koo xamante ne bëgg na amaat beneen mandat ñu ànd ceeg reportage Ibrahima Camara Modou Diop ci caméra bi. si diggante kàddu gi ak doxalinu woy politique bi bari na li ci waroo lool la ci gis-gisu jàngatkat yi président Macky Sall daje woon fan yu ñu génn ak waa coalition Macky 2012 ba noppi daal di daje ak waa coalition Benno Bokk Yaakaar jubli si it lenn rek. dafa gëmoon ne war na mën a tabax parteem ba xam ne dootu soxla Macky 2012 wala Benno Bokk Yaakaar sauf ko élection yi ñu génn nag wane na ne loolu am na ci lu luy dëgg peut-être mais li ci ëpp mënta nekk parce que même bu fekkee ne gagné nañ fu bari ci réew mi fi ñu perte symboliquement. dafay dal di gën ëpp solo fi ñu gañe da ngay dégg seen discours ba xam ne ñii seen wax ji neexal dëkkandoo la ak waxtaan bi mën a yendu mais en réalité ku ci nekk de boo taxawee fu sori sax di nga xam lam ñibbiwaale ak lam fa bàyyi bokkul. kaw parti socialiste ci biir benn bokk yaakaar di ànd buy andi ay jeexi jaaxal lool. ñu teqalikoog moom te teqalikoo gi kenn waru ko fenn toogu ñu def bilan ci seen biir politiquement. wax ne xalifa liñ ko soon defu ko léegi ñoom ci seen bopp waa nguur gi ñoo ko def adversaire politique muy nag situation boo xam ne bu jafe lay doon parce que xalifa Sall bokkatul ci ñoom te parti bi mu bokk mi ngi ci ci ñoom dekkal sena bi ngir mosal ñi ànd ak moom makki Sall ndax mënees na ko jural ab njëriñ coalition yoo xam ne dañuy wax ñaata ministre la bi parti am ñaata directeur ñaata ambassadeur loolu loolu projet politique parce que bu ñu leen newoon tey dootuñ leen jox xaalis mais askan wi lañ koy jox léegi nga gis ñuy génn par benn benn parce que itam seen parti li ñu soxla pour dund attanuñ ko seen militan li ñu soxla pour dund attanuñ ko. coalition Benno Bokk Yaakaar bi faloon Macky Sall sa atum 2012 ndax noppi na nekkit ci mënum tànk yooyu ngir gunge Macky Sall atum Pape Cheikh ñu jeexaleeg pose première pierre bu cité de l' émergence bi ñu amal tey boobee cité nag dinañ ko tabax ci fi nga xamante ne foofee la gare routière bu pompier nekkoon ki koy amal di président Macky Sall bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee lay doon lii lañ fi yoroon ci ay xibaar laata la yaat yegg si